ñu sax ma raw doom mais du ci man du ci yow yàlla ma def li ma doon yoon bi yaakaaruma ci kenn ku dul sama bopp ak samay ñaani waajur ñi xam li ngay doon ëllëg rek ni nga ñoo lay fexe lu bon mais jobal te noppi yàlla waxul kenn dara muñ xamee fi nga jëm jàppal ne doo fa mos a yegg fii ñi ngay wóolu te ñoo retourné doon ay féeg xaw ma fi ma jëm wante xam naa fi ma jóge foog ñi ma bañ ñi ma bëgg ñoo ma sonal bëggoo ma gis foo leen toog di ma sosal yàlla mooy may te moo may li ma doon boo leen ko sañoon ma dee mais du yéene dogal comme sama tekki ngeen di bañ ko di ngeen dee ci mbugal jaar-jaar bu metti rek ngay gis sa yoonu tekki boo nekk yoonu tekki da ku daj ñii dañ lay bañ ñii bëgg la ñii bëgg nga baax boo nekkee ci yoon bu baax dañ lu ne ngay gis lu ne ngay daj mais yàlla ki mu gën a bëgg rek lay teg métit mu métti ma kenn ku ma mën a jàppale te boo faatu salaaf benn imbécile lañ lay jàppee loo muñul mënoo ko am kon loo xaarul mënu la dab bu mot a métti ba nga weddi yàlla yaay ne ma muñal lu jot rek yomb ma déglu kaddu mer bañ léegi fii maa fii bomb am ñu ma yéene lu bonte masqué ma seen bëtu noonu ñu ne yéene nekk la borom rek a cay fanaan moo tax ma dëkkee jógam ne du ma mos a dellu ginnaaw li nga yéene nit rek moom la la yàlla yéene ba ñu ma ko may sentu ci gaalu xaj bi waaye bul ma ci fekk boo gëmee yàlla gëm sa bokk mbégte rek moo la ci fekk boo amul duñ la lijjanti ñu teg la doomeeraam nga tekki doon doomi ñëpp nga ñàkk doon mi diw kon àdduna amul solo bul jugé kente ni muy solo beng beng